boo ko waatee sant yàlla bu baax waaye xam nga nag xaritoom nit bëgg ko. te moom. ku la safoo. lii yoon mooy nga faale ko waaye man daal béti daal xam naa daal. bilaay mais son se suturaal ma rek ñëpp a gisee taat ah, naa la ah, ah, waxoon nga ko beneen bii passé. macha allah. baax na. maa ngi daw yaa ngi avancé maa ngi reculé yaa ngi avancé. maa ngi leen di ziar bu baax. te kontaan ci fi ma leen fekk nii. suma metre moo nekk en face ah waaw moom c'est moom mooy suñu maître ñun ñëpp ah suma xarit bi woon bëti jógee au passé <laughs> jërëjëf maa ngi di kontaan ci wax dëgg yàlla retrouver leen wax dëgg yàlla nit ñu nit ñu baax ngeen vous êtes agréable léegi béti noonu la ñuy def parce que maître li tax ñu gën ko fee woo surtout comme moom euh, borom xam-xam la si art martiaux nekk aussi si télévision yi depuis bon euh, ba ñu roy ko si fekk ko si léegi aussi dañoo gis souvent ak même dañuy gis par rapport ak yenn vidéo yi muy am ak yooyu muy waxtaan ci affaire discipline martiale événement yeeg yooyu léegi euh, parce que dama gis gis naa benn vidéo booy expliquer di wax ci euh, événement martial yi comme ça ngay wax ne pourquoi problème du am si événement yi def arts martiaux léegi foofu boo ñu si déclaté loolu loolu li tax ban ban kii. avancement wala ban tëralaay la arts martiaux def ba ba loolu mën a am. merci beaucoup ci question bi. Mm-hmm. Mm-hmm. Pape ndax euh, arts martiaux damay wax toujours ne euh, bokkul ak sport. Mm-hmm. sport euh, bon ñu jégal ma ci waxin bi c'est-à-dire amul benn éducation booy suivre pour pratiquer sport. par contre art martial déjà boo yéeg ci tapis nga saluer. booy travailler avec sa partenaire nga saluer booy quitter tapis bi nga saluer donc discipline boobu ñu lay jàngal mooy def différence bi euh, ba tax na li nga doon wax vidéo boobu la mooy euh, bu ñu dajee di def compétition ñun soxlawuñu alkaati soxlawuñu gendarme waaw danañu def suñu compétition ku gagné xam ne gagné nga gagné dans l'humilité ki perd aussi daal di xam ne perd na aujourd'hui mais il perd dans la dignité alors ñu génn dem ñibbi ku nekk dem defaru jiwaat. foofu foofu combat yi nit ñi ça que léegi pratiquants yi ñoo man ku nekk mën a xeex xam ne man boo ma laalee man tamit am naa lu ma lu ma gànnaayoo wala aussi euh, du foofu parce que nit ki boo bu bu jàngee nga jàng danga koy gën a respecter est que du foofu. xam nga euh, les arts martiaux c'est le respect d'abord hmm. waaw sa il faut le respecter waaw da nga respecter sa adversaire euh, que nga gagner que nga perte da nga ko war a respecté moom itam mu respecté la ça loolu mooy base u arts martiaux Pape ndax respect fu mu amul euh, lu bëri newu fa donc euh, tout est respect dans la pratique des arts martiaux parce que foofu li tax ko mooy xam nga dañ on aura a des pratiquement des centaines de perdants <coughs> si arts yi compétition yi day bëree nit léegi ñu bëri dañ nañ perte mais da ngay perte ba pare doo def euh, doo xeex doo kaas Euh, doo indi problème c'est-à-dire foofu laay waxee xam nga nit ki. waaw fi ngay waxee je ah. comprends bien Pape. Hmm. mais xam nga problème bi mooy euh, gis nga arts martiaux compétition période la bu bu gàtt ci. Hmm. ci pratique arts hmm. parce que aujourd'hui man compétir tuma te yooyu tam peut-être du compétir lu te décalage bi xaw na kii donc euh, li ma la doon wax sànq ci njëlbeen c'est un art de vivre art de vivre la boo xam ne bi daf la war a daf la war a gunge tout le temps dans toute ta vie euh, jël sa kimono sol dem pratiquer ji rek taxul nga doon budoka hmm. taxul nga doon budoka euh, dafa am benn conscience boo xam ne bii moo la war a accompagner ci sa àdduna yëpp hmm. waaw compétition période bu gàtt la et on est champion pour benn seconde hmm. bu jàllee jàll na maître man parce que parfois da ngay gis euh, ci ñi nga xamante ni bii ñooy euh, mooy seen nuit des armes yooyu ñuy def mu am ay perdant am ay kii mais xam nga bu dee ci làmb wala mu nekk ci nawetaan ñii ñëw di seetaan si ñooy indi après problème ah. mais ñi nu ñu def ba ñi nga xamante ni ñoo leen di seetaan si du ñu indi problème dañuy accepter défaite bi même bu xam nga fii même bu mbër mi accepté défaite bi. buñ génnee ca ca cooki bi naaw. mais fii même bu fekkente ni bi accepté kii accepté na mais ñii ñëw di seetaan si du ñu indi problème léegi loolu nu mu demee. très bien euh, xam nga euh, question bu ma neex a ngi noonu euh, ndax ñi ñëw di wàll si boo gisee damay wax toujours les pratiquants d'arts martiaux ñoom ñooy les parents pauvres du sport sénégalais. Mm, jërëjëf ñii ñëw di seetaan si. la plupart du temps c'est des pratiquants donc am nañu éducation boobu la am nañu éducation public public bu bokk ci la ñu nit di rax ah, wala bu ñu raxee aussi minorité la ñu doon suñu biir nga xam ne mënuñu créer benn problème mm-hmm. ah, eh, ñale am na déjà euh, éducation bu nekk ci ñoom boo xam ne bii euh, du leen permettre ñu am yenn comportement yi yow combattant am na loo xam ne ni boo ko defee ci tapis bi mm. euh, am na ñu nekk ci tuus bi mën nañ la sanctionner mm. un an deux ans sans compétition wala sanctionner la à vie ça dépend ci gravité faute bi bi nga def mais euh, bu ñu amee par exemple championnat d'Afrique fii ñi koy seetaan si la plupart du temps ay pratiquants rek la doon. mais mais mais Umar lu wala Sadio bu xam naa euh, ci biir euh, yaakaaruloo ni formation bi ñuy defal les pratiquants daf ciy jouer benn rôle bu bu bu am solo parce que tey jii ñu comparer ko à la lutte da ngay gis ku xëy rek. intégré benn benn benn benn écurie au sport je suis désolé de chez nous lañ koy woowee. waaw mais on dit sport de chez nous mais c'est plus culture li may wax xam naa ne dina am ñu bari ñu mun a xari culture la. du sport culture. li tax ba léegi mënuñu exporter boobu discipline lan la. mais da nga gis benn tubaab wala benn euh, allemand wala benn arabe mu diwo tuuro saafara. ngemb ah, li mbër di def ci làmb ji. bu génnee ci mbedd mi bu ko defee ñu topp nga diiraat. léegi léegi ci li ci li ma doon wax noonu est-ce que yaakaaroon ni formation bi nga xamante ni pratique bëri la ko ñi ko bu dutoon ak ñi ko dar ñu teg ko dof léegi léegi ndax ñu yaakaaroon formation li ma doon wax écurie yi da ngay gis day jouer aussi ci seen comportement dangay gis koo xamante ni day xëy rek ñu écurie bii laa bokk biir écurie yi lan moo fa am entraîner xëppoo suuf def seen làmb bokk comme ni nga ko tuddee comme nee nga des sport mais loolu aussi da ciy jouer formation bi parce boo ñëwee salle am na ci yu bari li nga wax ni salutation yi jox respect sa vis vis ak yooyu yëpp mais amul ci beneen yeneen sport gisuma ko amul ci foot amul ci basket amul ci làmb amul feneen. bravo Betty xam nga benn problème de am li may wax toujours ne on fait du karaté. Mm. on fait de la boxe. Mm-hmm. on fait du judo on fait du taekwondo mm-hmm. on fait. sport de combat yi mais on joue au football. joue jouer. jouer ouais. on joue au football on joue au basket. Mm. on joue au handball. on joue au tennis. entre jouer et faire. différence baa ngi foofu foofule. Euh, boo xoolee tey man yàgg naa di décrier loolu. Hmm. face à face yi ñuy def nii. c' est source de de tension source de tension la. Hmm. parce que dañu roy loo xam ne lii moomuñu ko. boo demee tey aux États-Unis tu prends un Mohamed Ali ou bien Mike Tyson wala ñu war a boxer mën nañu taxaw mën a sente def lu mais sa s'arrête là-bas jeex na après bu amee beneen explication c' sur le ring. ci ring bi la ñuy expliquer seen problème bu ñu paree ñëpp dem mais ñun xamuñu loolu da ngay taxaw ak nit naan ko bokkat nga. Mm. Euh, <laughs> nangam nga nangam nga wax koo wax joo xam ne ji bon. parce que jour boobu bi lii bi amee ci làmb ji euh, dama présentateur bi dem présente télé bi nu mu ko commenté baax na parce que lay fee rek ki la dikk dellu ci waat ci mais da ngay gis ki accompagner promoteur bi mu ñëwee mu def na dañuy jaay combat bi fii dara xew fi. combat bee toll noonu te dafa war a jar. maanaam moom mu ngi incité. mun na ja mënoon na jar euh, euh, te wax ju ñaaw wax ju tàng du jib. d'accord nga. man armation am na lu ma ciy gis ci làmb jeeg yooyu ay xëppante mystique bi dafa dominer ci seen milieu. parce que boo ñëwee toog nga ne diw xëpp na ma lii xëpp na ma loolu côté mystique bi aussi boo seetloo la plupart des problème moo koy indi. te gisuma ko ci yéen euh, nañ ma jegal bon xam naa ne buñ émission bi jàllee dana am ñu bëri ñoo xam ne <laughs> waaye wax nga sa xam-xam sa àq lay taalaa garaaw culture la du sport parce que amul beneen discipline au monde buy xëppanti saafara di am mm. mais nawetaan euh, nawetaan nawetaan day di sport. nawetaan nawetaan nawetaan góor gi. <laughs> Ah, dañoo lekk ah. ah. donc loolu dafa nekk loo xam ne lii euh, lu fondamental. mais danga wax ne léegi sànq euh, les arts martiaux ñooy parents pauvres de bon on peut dire de de de de sport au Sénégal mais euh, est-ce que du loolu umit moo indi ñiy def arts martiaux muy événement yi. muy émission yeeg yooyu sponsoring aussi dañ koy dañ koy perte lu bari mooy duñ ko am est que du làmb ji aussi tamit di def ñuy jaay noonu moo tax tamit ñoom ñu am sponsor ak affaire yooyu. Euh, euh, xam nga da dañuy. boole Sadio bu chaque jour mën nañu da ngeen a yaru ba mu ëpp moo tax. bokk na ci. bokk na ci hmm. du ñu génn ci mbedd mi kaas du ñu génn ci mber mbedd mi xuloo du ñu sànni xeer kenn. Hmm. mais euh, danaa la wax tey hmm. am na au moins quatorze champions du monde yu yeewoo tey Sénégal ci karaté. 14 champions du monde ci karaté combien de champions du monde ci taekwondo Viet Vo Dao barki Dembo Ndiaye dix combattants la ñuy yóbbu championnat du monde mm. France dix ils sont revenus avec vingt deux médailles Viet Vo Dao mais attends euh, li may wax toujours Kenya yi tey wala éthiopiens yi mm. danañ dem championnat du monde wala Jeux olympiques te yóbbuwuñu seen dawkat yi. waaw foofu lañ amee chance su médaille. Mm-hmm. te fii ak lu coow li bare bare bare bare bare. discipline yi génn di def compétition ñoom ñooy tax ñu dégg hymne national. amul leneen loolu moo fi nekk. mais est-ce que léegi ñuy bi euh, maanaam euh, arts yi seen loxo nekku ci ñoom lan moo ci seen responsabilité. waaw mais kiy gérer arts martiaux bi en fait nii les présidents de fédération man dama wax benn barke démb rek maa ngi koy wax ci challenge Vieux Vodaaw bi ma ne leen euh, situation bi ni mu demee nii lenn rek mooy tax man suma xel dal ñu def une seule fédération sénégalaise des arts Ah, une seule fédération de sénégalaises des arts martiaux ku nekk garder identité mais loolu dina difficile parce que déggoowuñu jubóowuñu et puis problème de leadership la ñu am lii defu voilà bravo tu as touché du doigt sénégalais euh, ay nit bu ñu àndee fu ñu jaar am kenn ku jiitu mais nekk président de fédération nga nekk président de fédération karaté garder identité judo noonu taekwondo noonu kung fu noonu leneen noonu leneen noonu leneen noonu mais que yéen fu nu waxee ngeen ni discipline la yar te yar bu ñu koy wax mooy nangoo toppee rek mooy yar yar bu ñu koy wax mooy nangoo toppee te ci armation nangoo toppee pas forcément nangoo toppee pas forcément mun nga mun nga bañ a toppee te terewul nga yaru mhm. non non je parle des arts martiaux quoi je ne parle pas euh, individuellement. waaw non mais xam nga. Euh, mais bu dee ni tey jii yar gi ñu ci wax ak discipline. gis nga loolu dafa am discipline ba defe ni keneen warul a jiite. dafa nekk ci ADN ADN sénégalais. Mm-hmm. sénégalais moo bëgg a nekk njiit. Mm-hmm. loolu il faut que ñu nangu loolu. sénégalais amul kenn koo xam ne ki bëgg nga feti ci gannaaw ku nekk da nga bëgg a jiitu. mais jàkka ji fu ñu jaar am kenn ku jiitu. la suñu borom bindee noonu mais foo dem dafa am ay euh, ay ñuy doxee rek ñu ne nañ ko tëral ñëpp ànd ci rek àdduna moom loolu la man de ci suma wàllu bopp. Hmm. dama naan. Euh, bu ma dee deewoon suba. yàlla dégg <laughs> ah, dégg na il y a une seule fédération sénégalaise des arts martiaux ma tëdd nelaw. waaw ah, loolu moom comme ni ko Betty waxee du nekk lu jafe lu jafe loo xam ni ku mel ni yow ku mel ni. man maa ngi ciy jéem ñoom ñeneen ak ñeneen est-ce a ngi ciy dox maa ngi ciy jéem mais à la limite. dafay xaw a niroog prêcher dans le désert. mais est loolu aussi tamit bokkul ci formation yi nga xam ne moom la ñu war a def ci club yi ci salle yi mooy la formation d'abord parce que yaa ngi dellu si ci voilà parce que fa li tax ma delluwaat si mooy parce que da nga wax discipline bi yaru beeg yooyu parce que nit ki bu nekkee xale parce que lépp dañ na si forme si éducation la bu nekkee xale si boom la ñuy dem parce que bu ñu nekkee si saal yi nga wane ne yow li ngay def rek moo baax mm-hmm. élève am euh, voilà ku nekk sa maître ak sa discipline il faut que ñu commencé di jàngal xale yi wan neen ne dajaloo bi mooy suñu doole di leen préparer si loolu ba ñoom si bu njëree la lépp waaw parce que bii moom fi mu toll nii moom voilà xanaa ñuy ñawaat ak ah, kon ñu tey defar préparer ëllëg quoi. voilà préparer ëllëg pour foofu laay waxee parce que pour bii moom gëm naa ne. gis nga fi ngay wax waaw. encore une fois de plus. li may wax dana am ñu bari ñu mun a xare mm-hmm. euh, nekk. ceinture supérieure ça ne veut nekk un enseignant. ah effectivement. waaw entre enseignant ak nekk au haut gradé. Hmm. y une nette différence. njàngale hmm. beneen affaire la. te nit ki mënul jàngale ci àdduna lu mu jàngul. la pédagogie tey fii tey am na maître loo xam ne li maître bi bu ko subirulee ci ba muy jàng. bu toogee booy jàngale loolu du ko xam. xam nga fii ci sa émission bi mag la koy doon wax keroog il faudra beaucoup faire attention beaucoup faire attention tu as une rubrique boo xam ne bii man dama lay suivre tout le temps hmm, parce que vraiment tu es un garçon euh, bu baax ñi ngay invité ki ngay invité na xam bu baax li muy wax man nag su may wax léeg-léeg mu <laughs> xaw a déborder waaw léeg-léeg mu xaw a déborder non parce que nit a ngi toog ci këram di la déglu la ngay wax moo la ko gën a xam ñoom bétti léeg-léeg wax fii loo xam ne nii mais am na ñoo xam ne nii am na ku toog ci touche bi. mu ngi naan ah bétti mii de su ma ko gisoon dinaa ko wax lii. si si effectivement nit ki euh, olof yi ñoo naan xam-xam a ngi commencé ci xaw ma. boo jëlee un grand philosophe comme Descartes qui disait que ne tout ce que je sais. c'est que je ne mais xaw ma gàcce newu ci. Mm. politique sportive en général moom problème parce que boo xoolee juillet juillet 2026. waaw xam nga xam baal ma foofu dama lay dugalal feef benn affaire rek après nga continuer sa question gis nga l'enseignement d'alors ak enseignement tey bokkul y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui sol kimono jaagar jaagar yi ñu ne maître maître maître maître mu dajale ay nit ñu di ko fay xaalis loolu moo ko intéressé. titre bi appui ak xaalis. Ah, euh, am ñoo xam ne ñi ils ont subi l'ancienne formation. Mm-hmm. ñooñu danañu am discipline bu toll ni danañu am humilité humilité bu toll ni euh, toujours di jàng. souvent da ngay dégg may wax naan bu ñu waxee seen sëy seen sëy am na ñu bëri ñu koy tiitaroo mm-hmm. jarul tiitaru seen sëy mooy jàngalekat bi mooy mooy njàngaan séeréer laa nag mais suma olof dana ah, xaw ah. seen sëy du dara lu dul mm-hmm. njàngaan bi njàngaan bi jàngale ndax mot mën a motale njàngam njàngam waaw loolu la Minoru Mochizuki doon wax ne. Hmm. un enseignant c'est un étudiant qui enseigne afin de poursuivre ses études. effectivement te nit ki euh, da nga war a continuer toujours ci njàng. Hmm. parce que yéen ce que amoo leen conflit de génération. Ah, non conflit bon non mais xam nga. Euh, parce que nga ñëw ci ancienne école ak école bi tey. waaw non xam nga bi gisee wax loolu loolu euh, ancienne école bi ñun li ñu doon jàng. Hmm. li ñu doon jàng. xale yi ñëw ci gannaaw jàngale tuñ ko léegi. est-ce que du foofu aussi du mag ñi ñu tamit ñoo ñoo fayir ci benn côté parce que ñoom ñoo war a gérer. waaw mais xam nga en général comme karaté c'est c'est les anciens en général ñoo gérer fédération yooyu. su ma sëriñ ba Cheikh na Tijaan si Al Maktoum. Hmm. daf doon wax ne magum lëndëm. Hmm. ku ko dajul itam mu am mu am fulay hmm. magum lëndëm. ku ko dajul itam mu am fulay daj boppam. Euh, barke démb ci lu yàggul il y a une semaine. tu es courant euh, les pratiquants de la banlieue. ñoo toog a toog ba ci kanam seeni i xalaat ku mel ni Pape Sène. Pape Sène waaw dojo communal ku mel ni dojo Sakku Xam-Xam Amadou Guèye. dajale toute la banlieue y avait plus de deux cent cinquante pratiquants ñu ne ñoom ñu oo ma seen see yow la ñu nga defal ñu stage la fa wax. réconforté na ma parce que dañu ne ñoom njàng moo leen intéressé. Mhm. sàkku xam-xam moo leen intéressé. Mhm. et loolu c'est un exemple. Ah yëf yi nekkul ci euh, joxe coup de pied coup de poing loolu c'est pour un temps. cest à mag ñi ñoom ñoom ñooy joxe la sagesse quoi la formation mais nag comme fi ma waxoon tamit jàpp kii fédération yi bu ñu taxawee ñoom comme bu dee karaté yooyu mag ñi ñoo nekk ci ginnaaw ñoom ñoo war tamit. fexe jël les élèves bañ a xam parce que mag sagesse bi muy am moo tax du toog di xaar mag mi ñëw pour def kii mais élève bi nga xam ne bii euh, euh, tafu na ci yow hmm. da am xolu wax ko li nga xam eh, mais kii mais yoo xam ne boo demee tey ci yeneen dëkk yi ci hmm. quatre ans la ñuy préparer athlète bi hmm. maanaam bu ñu jugee ci compétition rek balaa ñuy door beneen bi rek ñoom tàmbali nan xam ñan la ñuy waajal pour ëllëg ñu am ay sens su médaille alors que JOJ 2026 la mais on a l' ko que fii suñu réew ñoom ah, waajagun dara euh, euh, mon frère euh, Sénégal on fait toujours dans l'improvisation au dernier moment. dernier au moment au dernier moment toujours. excepté yenn discipline yi bu ma ko waxee ñu yaakaar ne. jalousie la. non man damay seetaan football. le samedi dimanche je ne fais que regarder ay seetaan ay match football. donc bëgg naa football doomu séeréer laa lamb rek a ma neex. quand je vais fële à la. Euh, ah, dama la ciy dégg waa. ah voilà lamb rek a ma neex parce que euh, ñun bu ñu mosaan béy boo nawet bi jeex. alors ñu dajeeg suñu morom di waaw bu ñu dexee gerte gi nga xam ne kii bon liggéey amatul ci àll bi ñun ñëpp entre copains ñu daje di bëre dañu bëre ba fajar jot ah donc mais dafa am loo xam ne lii wax naa la ko sànq fi Sénégal amee chance su médaille. Mhm. nañ ko exploité. les sports de combat. football baa ngi dox léegi de. Ah. Hmm? football moom ñoo ngi ñoo ngi waxuma ne doxul waxuma ah, waxuma ne doxul mm-hmm. mais. Mm-hmm. nee naa la fi sànq li champion. Mm-hmm. du monde champion d'Afrique salle boo dem fekk fa champion d'Afrique. waaw. boo dem fekk fa champion d'Afrique. Ah, mais mais absence de volonté politique. parce que arts martiaux xam naa dama koy am benn richesse xam nga tey jii football boo amee plus de 40 ans tey jii. période mais armation mooy tey boo dee assemblée di nga fa fekk koo xam ne ba tey ji mi ngi pratique ci biir ministres yi ci biir députés yi ba ci journalistes yi ñoom itam alors que ñoom ñi ngi fépp te doxul loolu. waa dañ ñu beddi <laughs> dañ beddi man mi ngay waxal nii à un moment donné j'avais le dojo de l'école de police. Mm-hmm. beaucoup d'inspecteurs de police de commissaires de police jaar nañ fa école de police. à un moment donné j'avais le dojo de l'université yaa y de magistrats de greffiers de ministres de ne couche sociale yëpp jaar nañ fa mais li ñu euh, yéwee ne ci defal ca làmb ja waaw waaw làmb ja la ñuy leen ma waaw foofu eh, mu ngoog football bi euh, am na benn <laughs> dinaa tooñaat tuuti de <laughs> béti amee ah, noonu la dañu def benn émission fële rétro sport 2S le président de la fédération de basket ne le basket est le le sport le plus populaire au Sénégal ma ne ko ban dëkk nga nekk. basket basket. <laughs> waaw kooku dafa jaawale dëkk yi. jamono président de la fédération pour moom Angola ma ko <laughs> ma ne ko ma ne ko popularité ci lan lañ koy mesurer. <laughs> Angola mooy yor affaire yi léegi popularité. Hmm. ci lan lañ koy lañ koy natte. Hmm. nga natte ko ci résultat natte ko ci nombre de pratiquants. Hmm. tey boo jëlee les arts lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt y' a plus de moins deux millions de pratiquants à travers le Sénégal est ce que am na ci football est ce que am na ci làmb est ce que am na ci basket non côté résultat amul discipline bu deful résultat au passage may Bamba Mbaye euh, euh, Cheikh Ahmadou Bamba que je salue ah nekk champion euh, d'Afrique en en tant que en tant qu'athlète nekk champion d'Afrique en tant que coach. maître xam naa foofu la ñuy tëjee. voilà invité woon nañu ko sax mais ma ko wax waaw dañ dañ la dañ la waaw <laughs> ah, voilà mais euh, damay dellu si ci li la wax. <laughs> waaw mais. <laughs> c'est des c'est un conseil que je te hmm. il faut que rubrique bi continuer ah. mais ngay invité ñoo xam ne ñu xam ne lu ñuy wax. Euh, asiatique yi. il faut que ngeen def ci seen xel ni ñu bàyyi di dox ci suñu xel yi di foye suñu xel yi duñu ko nangu <laughs> ah si si si dégg naa fi ñu naan woy kung fu nii nii nii nangam nangam. <laughs> mais wax naa ko la fois dernière les arts martiaux viennent de l'Inde. Inde waaw waxoon nga ko fi. waxoon naa ko fi Inde. waaw xanaa kon bu berceau des arts martiaux di am Inde la woon. <laughs> foofu beneen histoire ki doon ki doon bugg a <laughs> ki euh, vulgariser le bouddhisme bouddhisme ah. religion la à travers ah Sodes Bodhidharma moom la japonais yi di tuddee Daruma moom moo implanté euh, le te bu njëkk sax tudd loon kung fu c'était la boxe de Shaolin la boxe de la province du Henan. après nag ci la tasaaroo fu nekk ci àdduna bi. donc il y a il y a une différence d'appellation point. est-ce que war nañu ko nangu ci waa 2S quoi. différence d'appellation rek moo fi nekk. xam nga tey booy wax bëre. est-ce que séeréer bëre lay wax. njom. njom. est-ce que bëre lay wax. saraxule est-ce que bëre lay wax jola est-ce que bëre lay wax mais est-ce que discipline bi changé na dara c'est la même discipline ah donc il n'y a que ça viet vo daaw karaté discipline de percussion yëpp seen origine c'est l'Inde ah. la Chine Okinawa Japon Corée uh-huh. Vietnam un peu partout en Asie <laughs> ba ci Sénégal gi ah bon entendre salut lan histoire la euh, moom xam naa foog ñu waxtaan si histoire parce que waaw dina ñëwaat dina ñëwaat moom damay gën a intéressé mm-hmm. ñu waxtaan si bu bu bu baax a baax mais japonais aussi si chinois la jóge met moo tax chinois yi ñoo ñooy ñooy ancêtre japonais yi faut pas être souverain faut pas être souverain faut pas être souverain non non non tu as non non non non xam nga le conflit qu'il y a eu entre japonais ah non non ah, non vraiment ko sànni picc ba pare ni du ah, taw ah, euh, non les les le conflit <laughs> j'ai appris en Chine les qu'il y a entre japonais et chinois date de très longtemps mais c'est les Chinois c'est les japonais kii conflit boobu dafa yàgg. Ah, et la Chine est une ancienne colonie chinoise. Mm-hmm. Euh, une ancienne colonie japonaise japonais yi ñoo leen coloniser woon. Mm-hmm. donc mais yooyu yëpp c'est pas mon problème. Mm. li ma bëgg daal mooy que ñu garder suñu identité avec fierté. très important on est des Sénégalais. d'accord on a appris pendant des années et des années des dizaines des dizaines d'années. Mm. une fois Kancho Kanazawa me disait tu es dans le vrai ne change pas. mais dina ñëwaat si loolu xam naa. <laughs> dinañ dinañ def débat boo xam te ne on va parler de ça. Ah, on va parler seulement de <laughs> Betty ñoo ngi jégalu aussi di di di. di kontaan Sénégalais. merci beaucoup d'accord merci beaucoup.